Aja abis na combat Sokh de diggante ganja Fama beden ak Brosse El Bandi. Desan bukas El Bandi moo ñu woon gannaaw Fama lañ jaakaar lool premier combat de la soirée fii ci campement Ngeko ndeysaan bu ñuy mujjee bëgg demi final la woon le 31 décembre passé à Yayem El Bandi moo ko génne par avertissement kon nak Gandia Fama mo wara jël revanche ndeysaan Brosse El Bandit mbogu Moussa Thiaré bi wala ma ne mbogu Yvonne bi moom Brosse El Bandit waaye Gandia Fama le prince du Ndiombato moom lañ jàkkaarloo nin le le combat tant attendu le combat attendu par les El Bandit Gandia Fama nee naa leen combat bi koy yàkkamti dañ koy soxla bu baax a Hey, bukas tag na bukas tag na ganja bukas tag na ganja eh eh da koy daan Hey, bukas daan na ganja farmer, bukas na ganja farmer, de eh eh